sama gauche maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Niang Ballo xale Cambérène bi xale Parcelles bi sama gos maa ngi fi am ki nga xamante ni gone Thiaré wala boog Pikine ah muy Guy Manko mi nga xamante ni moo nekk équipe Bathie Seras tey ñoom ñaar laa fi dalal bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom bëgg waxtaan ak ñoom ci seen combat bi nga xamante ni dëgmal nañ ko defe naa ne combat bi moom bu ñu bu ñu bu ñu koytee ba noppi incha allah rek dañuy dugg ci combat bi ndax defe naa ne combat bi le 19 la ma bàyyi leen ñoom ñaar ñu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi Guy nuyu naa la. way faani la asalaamaaleykum man a auzu billah bismillah ina wàllu yàlla waaw ginnaaw ma sante yàlla di ñaan yàlla sama waaju bu góor fu mu tëdd yàlla na ko xaare àjjana fii daw sama waaju jigéen bi ma desee nag yàlla dimbali ba tey ji ma toog ba ba koy teral daal di nuyu sama gaay ma àndal tamit mm. bas am waaw kii ñu ngi leen ziar ñun mm. di bëgg gaay daal waaw doo nuyu sa adversaire. non ça sama hmm, ah, papa xale waaw. maa nuyu bu baax. ñoom nuyu naa la. baax bu baax. salaamaaleykum ginnaaw ba ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur bu baax baax baax di ko ñaanal papam boobu génn àdduna yàlla xaare ko àjjana. amiin ak ñëpp ñu mu fa fekk. di ñaanal sama gars yi ma àndal ñu am jàmm xam waaw di loo di la nuyu bu baax a baax a baax Ouzin du nuyu gars yi ma fekk yëpp. Mm-hmm. <laughs> maa ngi koy nuyu moom guy màngoo bu baax a baax. dama ko laaj léegi avant ñuy commencé xam xam nga ñang mu ne ma xam naa ko bu baax. ma ne ko loolu dugal ci moom mu ne ma moo la mën. te ma gis mu def euh, cinq quatre combats quatre combats ah. mu def quatre combats quatre wala cinq. bi mooy cinquième bi <laughs> dama gis mu def quatre combats nga def deux combats mu nangoo dugg ci yow lan moo loolu est-ce que est-ce que xam nga ko moom. non moom man nag xaw ma ko quoi. alal micro bi dëgg la. Hmm. xaw ma ko mosuma seetaan ay combats am ba nii quoi man nag gaa yi ñoo ma xam man mbëri yëpp ma xam mais xaw ma leen. mais nag mais li ma jaaxal mooy dafa koo dara ci làmb gars yi gars yi gaa yi gars yi xàmmee la. ñaari combats rek laa am. ajal mi ko bu baax deux laa mais xam nga borom bi mooy bindee noonu waa man borom bi moomu bindee noonu quoi. oui moo tax gaa yëpp xam nga. mais mais moom mën ko waa day nax boppam nag moom day nax boppam day foowee xelam ko waa. mais li nga def est-ce que tamit du risque nga jël koo xamante ne xamuloo ko. xamuloo mooy kan xamuloo lan la mënee est-ce que du risque. non du risque si man ndax xam nga kuy génn di dem di bëri ay mbapat dama xam ne doo leen xam. Hmm. nga leen di jàpp di daan. kii du doon risque si man. kii mënul doon risque si man sax billaahi. guy mango sa waaye dafa mel daal a umpale de. non ça pour man ni ma wax nii damaa xeeb ko xam. dëgg la noo noo ko xamee. xam nga olof ngaa wax sa baaxu sa morom yàq parce que man ku ma xam tey xam na tey booy làmb rek xam nga guy mango bu dee dëgg rek. Hmm. parce que jëmm toog. Hmm. du dara moo tax koy wax quoi mais xam nga dafa am fu mu jaar fu mu jaar sama rakk ju ma bokkoon ndey ak baay.

man dama toj Bawol musuma daan. Mhm. yàlla natoo na ma nag xam nga tamit jaamay paxam yàlla doo ma bëri sama deux sorties yu mujj. Mhm. yàlla xañ ñàkk mhm. tey xam nga lu ma xañ la si lay booxaale. <laughs> waaw trois sorties yu mujj bii si lay booxaale. waaw te moom dafa am lu mu réeré quoi. muy la moom ku koy jàngal bëri suñu igri ñoo ko tàggat. ba mu ñëw foofu booy fay. ba mu ñëw foofu di leen jàngal bëri. kon nag moom war na ñoom seen maître yéen yéen ko jàngal. ñoo ko jàngal bëri. loolu ko. waaw joojuwul fay sama <laughs> maa ngi koy ñaanal di ko woo si combat bi bu baax a baax a baax. fay maa ngi lay woo si combat bi bu baax. waaw nee nag ma la sama yaa may jàngal bëri loolu nangu naa ko bu baax a baax di la wax nag nga ñëw yokkaat ma xam-xam ma mën a jàpp booy bii nii daan ko. ndax foofu nga jugee xam nga nu muy demee fay maa ngi la siy woo bu baax a baax. mais nag mais nag nee na nga nga jéem koo xam xam mooy kan ak lan la mënee su ma bëree moom ba pare laa koy xam. ndax xam nga est ce que boobu am sens est que doo ko jéem a gëstu tamit. non jéem xam lan la mënee ak lan la tëlee. <laughs> oust instant yii nii xam nga man lan laay gëstu. xam nga fu ma avant cinq ma dem entraînement su ma ndogoo ba pare demaat tërëg xam nga ndax man aw ma jotu sax taxaw di seetaan booy bii nii. Mhm. si ay site wala affaire yooyu noonu. man duma ma fen dama lay wax loo xamante ni mooy dëgg. ñi ma am mais est-ce ko seetaanoon doo ci doo ci doo ci su ma ko seetaanee. Hmm. après day lëbëjee sama xel bi daf may foowee après bu boobaa sama man bi nii ak nii kii ma ko seetaan. day andi ay calcul quoi. wala noonu la xam nga loolu man sama làmb amul calcul damay ñëw jaale sama nafsu xool si gi xool booy yi xam nga gis ñoom jaañ si kaw ñoom xoos ñoom sóopi imaam Malick mi ngi ne combat bee ko fi indi xam nga ni nekku fi. waaw loolu dëgg la ah, combat bee fi indi booy barki alxuraan am nga combat. damaa jugee si defet mu métti. waaw waaw ñëpp ci defet gën a soxla quoi. dama la kaa gën a soxla fuuf guy mango. ginnaaw daal foofu gën yaakaaru gox. yaa ma guy mango seen combat bi moo lay waxal. yow laay waxal. gars yi seen combat lañ si teg. baaratin yow kii nag day wax ne xamul la mais koy ñaanal yàlla man man su ma daan boobu naa ñëw sa gaal xam nga. alal noonu nga dëkk. barki alxuraanu yàlla ji mën naa fa génnee ñetti car rapide. ginnaaw boobu maa la fa ëpp supporter fuuf. dama lay wax mu leer ah doo da dama fay maye bolegu tige ginnaaw raay dama fay maye bolegu tige ñuy ñëw xam nga màngoo nga dëkk pëndër raay pëndër raay booy bu ma tax a wax waaye nga saa ajal micro bi falaa yoroo falaa màgge ay dégg doon yaakaar ko maa la fa ëpp supporter fàq ñu bëri ñëw sam fa sama nën gën faa nekk xale nag ba Seydina Xome bu dee émission bi du ma ñëw maa ngi Gambie di liggéey le jeune le travail tout paie. waaw doo dem Gambie damay travail est gisoo xam maa ngi entraîné damay liggéey. xale la doo dem Gambie mais laa ma ne boo gisee ma xaw ko a jox cër xam nga waaw ban cër soo ma joxul cër dama koy. mais bu am sa da lay tegal ba baax force laa la wax yow. sa dama xër nga naan ma ay sa rakk ay sa lii ban rakk sa rakk boobu ngay jël tegal ko ne la man lu baax su ma koy def xam ma dama koy def te yàlla tax kooku daam fu ma fekk mu soutenir ko defal ko lu baax loolu waaw mais bu jarul wax fii nii loolu dawloowul sama dama daw sama yaram de mbooloo ay dama lay génn ay kaar moom ma jugee fa sama papa doo le maire yaa ngi dégg doon sama yaay booy may nekk gàllam yaa ngi dégg. man maa am ay soppi. yaa ngi le maire yaa ngi toog ay Malick dara. ay gox sama gox. nga am ay monsieur le maire sama gox kuy wàllu yàlla sa dëkk dafa neexul. ginnaaw daal dama la foog su ma fa doon naa bëreeg yow yow. yamal sa dëkk ba laamu ji xool boobaa garaaw quoi mu nga ñëw ginnaaw laa ginnaaw laa ñu dalal la baax parce que boobu xam nga mooy loolu boobu yaakaar nga booy man du ma gaanoo mbër booy. non dara dara non li ma jeex li ma wax. dëgg yàlla waaw loolu yàlla def na ko sama am ni ñoom dama ko ñëfe

alal bi ko akkan Pikine mooy sama papa. waaw bi sama nijaay. waaw akkan yaa ngi kon man su ma ragalee rek. li ma am sa lan la. non doo dégg. ah saa yi man lay nekk di leen limal. li ma am sa lan la Modou Ginaar sa lan la maa ngi lay wax ñu dëkk Ginaaw Raay. déggoo ma de. sa lan la. saa yi. ah Seydina lam moom boole mais jàpp di nga tëdd. déggoo ma de. si <laughs> ñoom lan leen ñan baalo laay bëreel. <laughs> ba yow est-ce que yow yow est-ce que yow nga. xam nga est-ce que yow ma ah. <laughs> la nga seetaan ma si wasaara ma de waxuma la nga seetaan ma si si yii de. man dama seetaan nit yi laajte nga ma yow. si sa intéressant. Ah. ah ñooñu nga lim nii laaj nga leen. ñooñu nga lim nii ay Pékin ay ñooñu noon laaj nga ma leen. waaye léegi man ñooñu. ah papa man laa. ah comme su ma dëggee ginaar damaa dëgg ginaar su ma fa dëgg. laaj seeraat sa lan la. waaw sama papa la man. Hmm. moo jàngal baax. baax na waaw man rek man. du ma gis ngeen mbokk yi ni lay demee ci jàmmaarloo ku leen xool ni ñu waxee parce que dafa mel ni nag dañuy wax xamante wuñ mais xamante nañ ndax ñi ñu fi lim nii. defe naa ni yéen ñi seetaan yéen a xamul mais ñoom xam nañ ndax am na ay cote yoo xam te nekk na ci biir euh, sa diggante kii moment bi parce que ñoo ngi ci koor. Hmm. defe naa ne ñu ci bari dañuy bàyyi ba ngoon ñu dem ñu dem ñu dem gontu. Hmm. wéerul tuuti. ñu ci bàyyi dañuy bàyyi ba ngoon ñu doog a dem gont mm-hmm. moment bi ñaata séance ngay def pour combat bi parce que ma déggee ngay wax mm-hmm. combat bi am na foo ko teg te am na fu mu la yóbbu tamit ndax bu ñu xool boo defee quatre combats def deux victoires yu njëkk mm-hmm. deux victoires deux combats da nga cee jëlee défaite combat bi euh, nan nan nan nga koy waajalee euh, gis nga combat bi ba ak Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa ak bisu koor gi ni combat gu mu bu ma a fenk sama àdduna combat bi sel parce xam nga boo bëree tamit da ñaan yàlla bëre daana Mhm. te sa ndaanaan la quoi moo ndaanaan la. parce que deux combats la dara quoi. yaa ngi mais est-ce que est-ce que xooluloo ni defagul dara ci làmb war naa ko mën a jël noggatu ko doo ko def deux combats moo tax may wax. non kii dafa ko dara si làmb kii ñu bëri xamuñu ko bàyyi Seydina Mohamed billaay man wax naa du ay mbëru sit ay si dañ lay. teel micro bi waaw temps yaa ngi dégg combat billaa wallaay taala. mais loolu nag bul ko defati parce que euh, gis nga site euh, fi sa tur mën a àgg wala boog fu ñu nee guy manko boo tàppee di nga ko mën a génnee xam guy manko lan la fi def wala guy manko ñaata combat la bëre loolu day yokk sa visibilité kooku moom dama la koy conseillé beneen yoonte ku la woo dalal ko waxtaan ak moom parce que day gën a yokk sa visibilité ci làmb. c'est vrai ñi ne si site di ratatati <laughs> ah sëñ nga damay entraîné yaa ngi dégg su ma ndog boobu damay dem entraîné boole si woor nag. billaahi wallaahi taala. sa diggante kii dama intéressé ko waa xam nga. sa diggante kii dina am xeex. man duudi sama àdduna yëpp dama ko xeex man. kaay xeex moom gën a kaay lekk. kaay xeex moom gën a kaay lekk man. ña de kon bu yeboo nga waaj. waaw waajoo xeex nag baax. <laughs> bu yeboo nga waaj ko. <laughs> non naa ko waajal bu baax a baax. moom xeex bi laa waxuma li nga ko waajal man naa ni nga ko waajal. ndax boo jugee waa Cameroun dinañ jóg dama ne. bu waajal ko. man moom xeexuma ko waa waxtaan wax dëgg sa waa. doo xeex ak kon baa du la duma. non ma booy boobu moom mu dóor ma moom moom na ma na ma toj sama r bi yëpp na ma toj mais booy man xeexuma ak yow yaa may dégg man xeexuma loolu la ma gaa yi wax. booy kii kii da lay jéem a bàpp lii muy wax nii yow boo xoolee sax xam nga ne lii moom du dëgg ci moom. loolu ma gars ay xeexuma lii du lii du lutte simple du mbapat lutte simple laa koy def booy boo nag nga waaxu ma nag saax-saaxe ma mais dama lay jàpp daan la ndax xam naa lu may indi xam naa lu topp sama ginnaaw hmm. yaa ngi dégg yaa instant nii grand combat bi ah. grand combat bi muy ah. soq moom noonu ak franc hmm. moo nekk nii ko waa soo bëggee dégg dégg ah. yaa ngi dégg. kon li avant première bi la. voilà grand <laughs> combat bi moo nekk nii. Hmm. soo bëggee dégg dégg Pikine la. ak parcelle. Mhm. te derby la musa doon. Mhm. si si si jamonoy Zos. Baaj Seeraas ba tey. Mhm. ba ba Baaj Seeraas di doomu daal waaw kañ ba tey <laughs> yaa ngi mu daanu affaire lamb daa ko dafa wadd mais lamb naa boo jamono xale laa quoi ni ngi si mën kon laa ma daaxoo jàmm dina ñëwaat dégg non looloo du ay caaxaan nag. bilaay waaw dañ ma see boole ay ay ay quatre causes. waaw coono si waaw wax jooju wax jooju da nga waxaat du doon sos a ñëw si équipe. maa ngi mm-hmm. du ay caaxaan de xam kii noonu si laa dugg naa suuf daal koy for ba léegi lambataay bàyyi si man la de musuma ko génn si combat na. yow loolu bëri na bu yàgg nga. loolu soo ko nee nii mu damm nga lan. yow jo jos ak bàcc séeraas ba tey yow kon booy booy bu ñu. na waay nga 2006 la woon de. loolu yàgg loolu. loolu maanaam koy ëwaat ëwaat ko ëwaat ko. galaat bu baax du premier du vrai. yow galaat boobu soo ko tëbee nii mu doon doomu taal. te mooy galaat moo la tëral nii vrai de galaat non yow xam nga galaat baax. laa ma ñuy gaan Ousseyn. maa ngi siy woo père boobu mu jàppale ma si bu baax a baax xam nga ndax làmb ji yow xam nga nu mu demee ko waa xam nga man daa am ñoo xamante ne danoo topp sama ginnaaw te bëgg naa ñu ma si jàppale si ay tiset xam nga ay ticket xam nga père ba ak Pape Gueye auto école bëgg naa ñu jàppale ma si bu baax a baax ay parcelle lañ dëkk ñu ni jàppalee mbëri gis nañ ko xam nga mhm. ñoom nan nu jàppale su weesoo loolu maa ngi ñaanal sama waa ji soo xam nga imaam mi ngi jugee ba réew ba làmb jee ko fi indi xam nga di ko ñaanal jàmm xoos a ngi nii sama ginnaaw ak ñeneen ak ñeneen di ñaan moom mii mu am jàmm man ma am jàmm xam nga ba bis boobu ma yàlla may man dam si kawam ko waa si kàttanu yàlla gis ngeen mbokk yi ñoo ngi ciy jaajëfal ñi nga xamante ni mooy jàmbaar waa jàmbaar ndax defe naa ne seen seen du ma ne seen seen seen journée bi sax mais galaa la ñu def ndax mbokk yi boo xoolee combat yi ñu ci def xale yu ñu boole ñëpp ay naataangoo lañ te ay combat yu neex la ñu tëgg di leen ñaanal li seen kanam dàq foofu li nga xamante ni mooy ci parce que euh, tout récemment déggaat nañ beneen grand combat bi nga xamante ni ñëpp soxla woon nañ ko mu dox ci diggante Siteu ak Papa Sow combat bi coow yàqoon na ko ndënd li laak du ndënd li ak sarax bi laak ñu dellu si waat andiwaatal ñu ko di leen ñaanal nañ ko yeggaleeg seen sago euh, boo mën kàddu yu mujj lan lay doon. waaw bu ñu doy la goo ci moom ba léegi parce que dama dégg léegi nga naan ko teel ngaa tàggoo. non day teel a a woote. ko nangu rek moom mooy loolu quoi. waaw daa jaaxle woon damaa yàlla ma boole ay ay xale ñooy topp sama ginnaaw xam nga. Mm-hmm. billaahi di dang dang si waa ngoon. kon man su ma nee am naa seen fay rek dama wax la di fanaan sama kër mbër lu mbër soxla xam nga ñu ngi siy dox comme su toogee xam di wax te du ma leen tudd rek amaana tey sama ngoor des na daal. Mhm. waaw te yaakaar bu ñu am si man nag yàlla na ko ak weeru koor bi yàlla na ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yàggale. Mhm. ba tey lépp luy seen si man rek suñu borom def ko bas maa ngi koy nuyu waaw di nuyu Xalil waaw amu maa ngi koy nuyu jëm mam jaar faama sama yàlla gis na ba combat jaale ba commencé ba léegi. ba ba mu làq yu nii. ba commencé combat commencé ba léegi. mais soxna Ayda la na àndal nga naan ay maam jaara faam. soxna Ayda maa lay woo si combat bi. Ayda <laughs> wàllu a baax bu sëñ Saliou billaay yi ñu ngi la ciy woo bu baax a baax. Ah, waa ginnaaw raay mbooloo ah, bendoo ginnaaw raay bendoo xam nga ginnaaw tamit dafa bëri ay kii quoi ay mhm. parti mhm. xam naa loolu xam kon moom laa bëgg a wàll yaan mais garaaw yow da ngay daw génn foofu barki Serigne Touba Mbacke. su ma ñëwoon ginnaaw raay da daw génn foofu. man daal li ma leen moom wax dëgg yàlla ba mu nekkaloo quoi. man loolu la ñu laa tànk jëm ci xam nga mun nee na après combat dóor la ko def quoi man dëgguma Pikine ginnaaw raay laa dëgg ginnaaw raay laay tiitaroo man fa laa yeewoo man duma mbëri Pikine mbëri ginnaaw raay laa mais lépp benn la bu xaajal non ma benn ay noonu foofu noonu. déedéet benn déedéet man Géejawaay laay laay benn la. mais mais ku ne ñang ñang ku ne gis na ne. jëlal <laughs> ku ne gis na ne journée bi ngeen bëree euh, ay ndaanaana ci ci ci ay ndaanaana ci bëree ci wàllu mobilisation fan nga ci toll. waaw waaw ajal micro bi. moo tax nag loolu laa bëgg. ndax mm-hmm. journée bu mag la. Mm-hmm. xam nga am na yeneen booy sax yu si bëre quoi. yu mm-hmm. dëkk parcelle bi noonu. mais man ku nekk sa bopp nga xam quoi man maa ngi woo gars yi mooy ñu may woo ba waaw bëgg naa nga may ma ay tisat ay ticket xam nga Pape xam nga bëgg naa ngeen jàpp si bu baax soxna Ayda bu sëñ Saaliw waa Cambérène xam nga waaw manuma dem saa ñoom sama booy rungaas yi ñoom Ose booy yu ndaw yi xam nga fan si club ñang baalo bi maa ngi leen ciy woo bu baax a baax a baax yenn grand frère yi tamit xam nga yu dëkk si secteur bi keroog gisoon nañ seen réunion bi mais après xam nga gisaatuñ leen xam nga ñu ngi leen di woo bu baax a baax carte soutien yi génn na moo ngi si soppi xam nga Martin moo yor carte soutien yi ak xoos Ndiou Diop xam nga. jàppale ma si kombaa bi bu baax a baax a baax ndax soxla naa ko quoi soxla naa si ndam incha allah. waaw lu mobilisation bi fan a ci toll. waaw ñun moom mën naa ginnaaw raay même waa Sofos la nga fekk wax dëgg yàlla parce que li a wax man mbiru gox laa ko wax tey bu doon penc ma ne samp nañ ma si penc bi yaa ngi dégg kon nag waa Koba maa ngi si a ginnaaw raay surtout maa ndaw a parce que man xale laa sama Koba. yow bàcc seeraat daal sax tiital. mag mag téere moo tiital quoi ba léegi. yaa ngi di ñëw waa Touba xam nga. tey waa Touba la parce bu ma jël fa la yeewoo maa wax lépp dañuy ñaanal seen doom xam nga waaw. le 19 mu ña mu daan jàng baalo bu set bu amul daal waaw góor a ñan. mu daan ko bu set bu amul benn vérante xam nga. comment la li ma la mën a wax sëñ bi naa wax ndaw nga teg la deux défaite ah. ndawal suñu borom la quoi. moo la jaay sama tur. bu combat gën a ñor suñu àdduna combat bi si la. waaw baara kon la demee. waaw. <laughs> gis ngeen mbokk yi ni lay demee ci jaamaarloo. ñaari xalal yoo xamante ni ku ci nekk sa combat bi mujj ci defet ga jóge ku ci nekk nag soxla nga ndam waaye nag ku ci nekk ngi xëcc waaye xam ma nga ndam li ci kan lay mujj waaye di leen mën a li mu leen ci mën a wax ba wax leen ko ci daal mooy ay xale ngeen entraîné leen bis ba jotee ngeen wane jom ak fula ak fayda. ku yàlla may ndam nag nga xam ne noonu la demee. Euh, bu ngeen fàttewul dara mën naa tëj. non na ah, baax na. bàyyi ma santaat rek. billaay santaatal ko. billaay wallaay taala. c'est si jàppee sax dañoo bëri quoi. na yàlla. <laughs> ah El maa ngi lay nuyu la page. xam nga moom la 19 <laughs> am boolal ñaar yëpp dama dama jëlee conférence de presse. du nuyu waa ginnaaw raay yëpp. xam nga seen doom seen raq seen jarbaat bu jëlee sukk sax ma sukk. war na ma wut ñoom ñaar ma ndimbal waa gox laay laay si combat maa ngi woo waa ginnaaw raay yëpp. bay Seydina Mohamed. benn bi dama ko war a tëddee suuf. billaay wala taalaay. ay weeru koor bi mu la sa baara da ngaa baax lu dul yàlla neex. ñëw fii nga def say business ba pare xam nga sa maayen. xam nga gars yi ñëw waroon defar fii nii ñëw maa leen jàppale bee ñu. saa fii nga daajoon. saa yi yow baara dafa dox sa maayen yóbbu la fële. waaw fii daw suñu yaram. dama dox ñu ma doxee sa maan. non gën laa doxee sa maan ba tànn. ci lépp lu ma gàllaaj da nga baax rek. ma entraîné laa waaw toogal foofu. man entraîné baax na. yàlla may ndam sa kaw rek. le travail tuppe xale day liggéey. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo di kontaan ci ñoom ñaar ñëpp di kontaan ci promoteur bi nga xamante ni moo tëgg lii di leen jox dig daje beneen yoon yeneen mbër ci jàmmaarloo waaw promoteur bi Mor. maa dama koy ñaanal quoi. si lu mu jublu nii xam nga. Mhm. waaw affaire bi doon réussite total quoi. Mhm. waaw ndax ñu ngi déggaat beneen combat bu mag di ñaan yàlla tamit xam nga mu yeggale ko si jàmm xam nga ma am fii nii ndam mu dugalaat ma foofu noonu. waaw maa ngi koy ñaan si waaw Mor maa ngi la siy wax si ta Papa Sow bi waajal ma si quoi incha allah. di leen jox dig daje beneen yoon jaa ngeen